buñ wàññee daa yi ñu amee xalima yi pour di bind li muy wax dana nag juróomi junni ñoo xam ne ñi ñëpp dañuy dig li muy wax rek di ko bind da xam ne bu téenee asamaan day jàlloog aras ak kursi yu jàlloog ajjana ak safara dem na ba dellu gannaaw ba wedd yàlla ba bokk ci concours boo xam ne pour wane ne yàlla amul mu jël première moom balaa mu baa Birsiis dafa bàyyi woon doomu aadama yi ngir ragal yàlla dëkk ca àll ba ngir bañ a mooy bañ a liggéeyul lu dul jaamu yàlla la mu mujjee seytaane ko fexeel seytaane fexeem feeg nit ki noom daa ngi dem ak a dikk muccagu ci laa taamanu makaayida seytaani qabla firaaxi ruuxi li labdaani li annahu waqtal mamaatiyaat yi doomu aadama dana nekk ci yoonu jub ba toll ci sukaraat seytaane ñëw yàqal ko laa qadarallaahu wala samahu wal iyaasu billaah big siis moom seytaan ni mu ko fexeele dafa demoon fekk benn jànq bu rafet rafet ba doy waar mu daal di koy sadd muy daanu ay rab fu ñu dem rek duñ ko mën a faj ñu ne ah am na benn jaamukatu yàlla bu nekk fële de nañ dem seet ko ba xam bu ñu dikkee ne ko kii ñaanal ko mu ñaanal ko iblis daal di feebar ba mu wér ah, kii de moom moo ko faj buñ delloo toujours ñu jekk ko mu yàgg affaire bi dalati ko ñu indi ko ba mu yàgg nga ne daf koy li mu koy dal day jege yow jege yow ñu ne nañ ko bàyyi foofu dégg nga foofu pour daal mu di ko ñaanal ba mu wér ñu ci def yëpp mënu mu leen ko nettali xam ngeen ko ba mu ko ëmbalee seytaane ñoom wax nit ñi ne leen kii neen di wax da nangam mu nangam ñu dem di ko seet fekk rey na ko ba suul ko seytaane wan leen bàmmee ba ñu sindi ko gis yooyu yëpp mu doxe ci nag dal di jënd diine ji di naan sàngara di def lu gën a bon ba mujj ci safara nga xam ne ko mbirum bala am ak mbirum birsiis yooyu yëpp nag waxtu yi du laaj nga détaillé ko ak na mu demee dëgg-dëgg waaye li mu ne xamal rek moo di wóoloo di ko taxaw ci kaw ragal ak yaakaar moo tax ñu ne wa man ankara aqtaaba bi zuudi qul lahu misaalan mbirum bir siis aw doj la daan lëmu wa man ankara aqtaaba bil ilmi qul lahu misaalan mbirum bir siis ci aw doj la daan lëmu wa man saaqa anhum bil ulumi fa qul lahu misaalan mbirum balaama xam-xam jarul damu alquran ne fa la nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalina suñu borom nee na danaa taxawal yonent yi ma yónni woon ci nit ñi laaj leen na ngeen doxale seen biir ñi ñu yónnee woon ci ñoom itam daañu leen laaj na ngeen teeroo gan ñooñu ñu yónni woon ci ñoom am na ngeen def leen te ñoom bu keroogee fu man saqalat mawaaziinuhu fa ulaa'ika humu l-muflihuun képp koo xam ne say balance yi yiw diis na yaa bokk ci way texee nii koo xam ne say balance dafa woyof nag sa balance ay diis yaa dugg ca musiba ba yaa perte bu keroogee bis boobu la tooñkat bi di mat baaraamam ah aka neexoon ma topp yoon aka neexoon diw du ma xaritoog moom aka neexoon du ma ko xam sax dugal dugal gën a bon ndax wa man yaxshu an zikri rahmani suñu borom ne nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin képp koo xam ne wan nga gannaaw turu yàlla daanu la booleeg seytaane soo xam ne day ja lëkkoog yow ba faww boo lekkee mu ngi lekk ànd ak yow ànd ci li ngay boo naanee mu ngi ànd ak naan di jax-jaxal sa xol boo dee jëf mu ngi ànd ak yow di jëf di yàq sa jëf di ñaaj suñu borom ne képp koo xam ne kii jaay nga leer jënde ko lëndëm wala nga jaay adduna jëlee ko jël nga jaay sa alaxira jënde ko adduna da nga réccu réccu booy xat kon doomu adama ji dafa war a xam ay waajibaatam fexe ko sof dox yépp mu appliqué ko dama waree jigéen ñi nañu yar seen doom yu ndaw yi daañu leen ko laaj ëllëg de nañ leen xamal yoon wi jub nañ soxal ci ñoom jikko yu rafet li ñu war a wattandiku li ñu war a bàyyi fi ñu war a dem fi ñu war a kii ba nga xamee ne seen bàyyi ak si nañ ci ñoom ñoom it jël seen wàll kon bokk na ci war di seet ñi ngay àndal seet ñi ngay toogal te nee na jamono di dara jarul ci jamono bu mu passé defuloo dara ak perte lay waral bu ëllëgee ci war na fu mu toll sax ay sas yu muy sas boppam bis bu ne danaa def nangami salaatu ala nabi rawatina jigéen ñi jigéen moom salaatu ala nabi ci ñëpp la baax waaye ci moom la rawati ndax salaatu ala nabi buñ fi toogoon di lim li muy jëriñ